téléspectateurs téléspectatrices Leral TV ak i tamit euh, mbokku internautes yi ñuy xool ci leexal point net ñu ngi leen di nuyu tey ñu ngi fii au temple du football sénégalais fi nga xamante ni moom mooy stade Léopold Sédar Senghor ex stade Amitié xam ngeen ne ñu ngi ci benn projet stade bi mi ngi nekk ci ay travaux yu mucc ayib muy euh, projet d'aide bu waa Chine. ngir defal ñeenti stade fii eh, ci Sénégal benn bi bokk na ci muy stade Léopold Sédar Senghor ñu commencé les travaux août deux mille vingt deux eh, kon dañu ñëw tey def benn immersion def benn waxtaan ak ki nga xamante ni moom la ñu dénk stade bi di le directeur général monsieur Sy ñu ñëw tey war a waxtaan ak moom ci li nga xam moom mooy état d' wu travaux muy liggéey yi nga xamante ni moom la ñu amal fii ci stade Léopold Sédar Senghor te askanu Sénégal gisuñu ko bëgg a xam. ana fan la liggéey bi daal di toll diggante sénégalais yi nga xam ne ñoo fi nekk ak ñoom chinois yi nga xam ñoom la ñu dénk projet bi ñoom chinois yi li ñu leen dénk mooy ci biir stade bi muy ci pelouse bi ak itam tribune yeeg vestiaire yi li ci biir loolu yëpp la ñuy liggéey muy rénovation defaat ko waat wala bokk ñu tuddee ko li nga xamante ni moo jëm ci wàllu euh, defaraat stade bi ba mu gën a ñoŋ daal di dem fekk ji ci norme internationale bi nga xam ne moom la ñu daal di tëral ngir stade boo xamante ni mooy dox ci anam na mu gënee. kon mbokk yi moom la ñuy ñëw xool tey muy stade bi li nekk ci biir ak li nekk ci biti fan la liggéey bi toll di ngeen ko gis waaye tamit moom mi lee le directeur général Moussa Sy ñu koy gërëm bu baax a baax ci lim ñu yombal liggéey bi ñu ñëw waxtaan ak moom euh, ci wàllub liggéey bi lan la tënk mais booy xool projet bi c'est quarante milliards pour ñeenti stade 40 milliards pour ñeenti stade mais stade bii di Léopold Sédar Senghor ci la ñu dugal 20 milliards ci suñu ay koppar pour daal di koy defaraat ba mu gën a ñoŋ léegi nag dañuy dem ci directeur bi monsieur Sy fekk ko ci bureau gars yi commencé nañu seen i liggéey ñu def fekk ko ci bureau waxtaan ak moom ci ni mu gën a yaatoo lu jëm ci wàllu projet bi ak itamit liggéey bi fan la toll actuellement maa ngi ànd ak Cheikh Tidiane seen mbokk yi téléspectateur téléspectatrice ak itam mbokk internautes yi à tout à l'heure suñu waxtaan ak monsieur Sy ak lépp loo xam moo jëm ci wàllu image ci defaraat stade Léopold Sédar Senghor sur Leral TV et Leral point ngeen fii nii nekk sama ginnaaw ngeen di gis euh, fii mooy bureau bi nga xamante ni fa la euh, ñiy jiite stade bi nekk mu rawatina la directeur bi ñu war a waxtaanal ni léegi monsieur si di yuusu mi ngi ci biir waaye tamit ñeneen ñoo xamante ni ñoom ñoo gérer travaux yi nekk ci stade bi nekk ay kilifa fii mooy seen bureau. waaye tamit am na beneen wet goo xamante ni foofu la yenn ci ay ouvrier chinois yi nekk ñu dem ci bureau bi dem xool ki nga xam ni moom mooy monsieur Sy le directeur ñu daal di am ak waxtaan. ci li nga xam moom mooy liggéey bi ñu amal ci stade bi commencement bi adaf kañ lay jeex ak i tamit koppar yi ak i tamit ni ñuy liggéeyee liggéey bi ak chinois yi loolu yëpp ak le directeur général bi ñu dékk stade Léopold Sédar Senghor di monsieur Sy Cheikh Tidiane ñu dem xool le DG. salaamaaleykum monsieur Sy ça va bien ça va alhamdulilah ça va bien merci euh, tey dañu ñëwoon seet si la sa kër gi stade Léopold Senghor ñëw xool ci liggéey bi comment ça se muy travaux yi commencé depuis août 2022 fas yéene si kër waxtaan boo ñu ko permettre bien sûr c' est un plaisir de vous recevoir ici au stade Léopold Senghor comme ni ngeen ko waxee ñëw xool fu affaire yi toll te c' est important aussi que ñuy joxe information pour nit ñi xam aussi liggéey baa ngi avancé bu baax matin incha allah léegi stade prêt ñu mettre permettre maintenant population sportive bi ñëw di mener seen activité normalement si. kon moom la ñuy def waxtaan ak monsieur Sy ci li nga xam moom mooy travaux stade yi lépp rek pour public sénégalais yi nekk fii ak i tamit diaspora bi ñu xam seen stade bi nga xam ne ñu ngi koy defar ana fan la toll. fàttali chers téléspectateurs téléspectatrices ni ñu leen ko waxee woon ak chers internautes bu leexal point net ñu ngi fii ci bureau euh, le directeur bi nga xamante ni moom lañu ñu dénk stade Léopold Sédar di Youssoufa Youssoufa Sy moom la ñu dénk euh, liggéey yi nga xamante moo fi am tamit muy saytu lépp euh, directeur yombal ñu lépp ba ñu ñëw fii war a sekk moom waxtaan ak leeral TV leeral point net directeur monsieur si maa ngi lay nuyu. di la bàyyi nga nuyoo ko mbokk yi nga xamante ni ñoo ngi ñuy seetaan actuellement sur Leral TV et Leral point net. Euh, merci beaucoup monsieur Ba man tam maa lay fay di la nuyu bu baax di la nuyu bu baax di leen dalal jàmm fii ci stade Léopold Sédar Senghor di am mbégte ak kontante recevoir leen fii ñu waxtaan tey ci wàllu mbiru état d'avancement stade bi parce que ñëpp xam nañ ne stade bi dafa nekk en projet de euh, construction de reconstruction même je di mm. réhabilitation du donc avec, euh, dans le cadre de la coopération entre la République populaire de Chine et l'État du Sénégal. donc voilà di nuyu tamit askan askan bi ñuy seetaan yëpp. waaye ndax den den ku si nekk ma la jox sa wàccuwaay. alors monsieur le directeur wax nga ko léegi euh, ñun ñoo lay remercier gannaaw bi nga xamante ni yombal nga ñu liggéey bi ak sama caméraman di Cheikh Tidiane alors li ñuy njëkkee rek mooy comme ni nga ko waxee euh, travaux de réhabilitation maanaam defaraat stade Léopold Sédar Senghor. mu tukkee ci lëkkaloo diggante Sénégal ak république bu Chine euh, mën nga ñu wax en ce liggéey bi euh, tàmbali na euh, si je ne weeru août atum deux mille vingt deux deux ans ngi nii ñu ngi commencé liggéey bi alors liggéey bi tàmbali nañ ko ana fan lañ toll ci liggéey bi jamono ji waaw mën nañu wax ni donc comme ni nga ko waxee ñu ngi tàmbali liggéey bi si weeru août deux mille vingt deux di wax ni donc durée donc travaux de réhabilitation yi trent mois nañ ko te fi ñu nekk nii booy xool dem nañ si parce que passe nañ dépasse nañ moitié bi donc booy xool avant eh, liggéey bi mi ngi jëm mi ngi avancé bu baax mu neen wax sax jege nañ lu mat ay 70 pour cent parce que booy xool tey tout ce qui est gros œuvre liggéey bu xamante moo si gën a métti jeexal nañ ko depuis le mois de décembre passé léegi ñu ngi toll si maintenant si liggéey boo xamante seconde œuvre yi la ak euh, pratiquement finition yi moom moo des pratiquement waaw liggéey bi wax nga ko nga ni li gënoon diis jeexal nañ ko fi mu nekk nii ñu ngi ci sew sewaan yi maanaam daal ci booru finition lañ nekk liggéey boo xool téeméer yoo jël juróom-ñaar fukk yi jeexal nañ ko muy cent pour cent yi 70 yëpp liggéey nañ ko alors mën nañu wax euh, ci wàllu liggéey boobu ne lëkkaloo la diggante Sénégal ak Chine lëkkaloo boobu nu mu demee te dégg naa tamit koppar yi nga xamante dugal nañ ko ci pour stade Léopold Sédar Senghor waaye yemu rek ci stade Léopold Sédar am na yeneen i stade yoo xamante ni bokk nañu ci budget global boo xamante ni dañuy lëkkaloo ak Sénégal ñoom waa Chine pour daal di koy defar. waaw donc euh, comme ni nga ko waxee lëkkaloo la entre République populaire de Chine ak République euh, État du Sénégal. ñu profité si occasion di remercier bu baax donc euh, la de Chine parce que ñoo ñu taxaw tey boo nu mën a defaraat stade bi bay xool projet bi mu ngi tudd projet d'aide de réhabilitation quatre stade pour quatre stades au Sénégal donc quatre stade la concerné mais stade Léopold Sédar Senghor di stade Ely Manel Fall bu Diourbel stade Lamine Gueye ba Kaolack ak stade Aline Sitoé Diatta bu Ziguinchor boo xool coût global bi may xaalis bi yëpp mënu war a def si travaux yooyu xayma nañ ko lu mat 40 milliards 40 milliards dañ si def mais 20 milliards yi mais xaaj bi moitié bi moo concerné stade Léopold Sédar Senghor mooy stade bu gën a mag 20 milliards yëpp donc si stade Léopold Sédar nañ ko Léopold Sédar Senghor nañ ko consacré yeneen milliards yi des nag moom nañ ko séddale pour ñetti stade yooyu ma tudd léegi muy bu Diourbel bi ak bu Kaolack bi ak bu Ziguinchor bi ñoo ngi koy ñoom nañ ko séddale vraiment di wax tamit euh, di remercier bu baax comme ni ko waxee parce que entreprise bu wax moom mooy troisième plus grande entreprise de Chine donc muy wax CSCEC e mm. waaw ñoom ñoo réalisé donc travaux réhabilitation yi donc muy entreprise yoo xamante ni def nañ ay euh, jaro yu mag si wàll donc ay travaux yu mag infrastructure yi mag si monde bi mm. boo xam mi ay aéroport mm. ay ay ay route ay autoroute ay pont yëpp parce que ñoom ñoo ko ñoom ñoo ko defar mais boo xool sa Dubaï boo gisee am na benn partie boo xamante ni bu rafet boo xamante ni sous forme de palmier ñu def ko sous géej gi noonu entreprise bi moom ñoo ko defar ñoom ñoo ko réalisé donc ça veut dire que donc c' entreprise boo xamante ni xam na liggéey bi c' est une entreprise de qualité moom ñoo ñuy defar donc stade bi voilà. comme ni nga ko waxee ñoom ñoom comme ni ñu koy waxee rek euh, toujours dañ naan chinois yi ñoom ñoom dafa am leen yàlla may maanaam ay jinne lañu euh, mais bi nga xamante ni rek ñu ngi def euh, lii di lancement wu travaux yi c'était avec l'ex ministre de sports Matar Ba ñu koy nuyu au passage di ko saluer si liggéey bu rafet bi nga xam ne def na ko ci wàllu sport bi ministre bi nga xamante ni nag moom moo fi toog jamono ji ñu koy ñaanal moom i tamit mu daal di. Euh, atteindre ay objectifam am lépp lu mu bëgg lu mu mbébét ci wàllu sport yàlla na ko suñu borom jàppale mu nekk ab soxna nag c'est la première fois ñu am euh, ministre boo xamante ni euh, jigéen la muy yor wàllu tàggat yaram ak jeunesse jour bi nga xamante ni si lañ doon lancer travaux yi gis nañ ko muy stade boo xamante ni bi ñu wanee image yi stade bu mucc ayib ñu bëri dañoo foogoon ne dañuy toj stade bi defaraat ko looloo gën a jaaxal nit ñi mais boo xoolee actuellement ak état d'avancement travaux yi gis tojuñu dara mais ñu ngi defaraat mel ni ki dañuy wekki di monté waat yeneen mu nekk loo xamante ni lu yéeme la. waaw voilà donc ñuy wax nii donc comme ni nga ko waxee stade bi ñu euh, ngi ko amee woon tamit si cadre coopération avec république du Sine en 1985. Mm. ni nga ko inauguré woon. mu nekkoon stade bi tax ba ni bu ñu toogee ne ba mu mat ay euh, fanweeri at ak juróom-ñaar ñu gis ne stade bi mais 37 ans mm. d'existence gis nañu stade bi pratiquement yàqu-yàqu yu bëri na dafa bari woon trop. Mm. léegi chinois yi bu ñu ñëwee nag dans le cadre de la coopération ñu xoolaat stade bi ñu ne donc stade bi nag war nañ war a mën a defaraat bu mu nekk bu mu nekkaat stade bu mucc ayib c'est-à-dire mu respecte aussi les normes parce que xam ngay defee stade day évoluer parce que non seulement projet de réhabilitation la mais de mise aux normes parce que ñu mu mën a ñu mën ko homologué par donc euh, FIFA pour mu si def ay compétition yu mag yoo xamante ni FIFA dina ko homologué ak CAF donc moo tax ñoom ñu ñëw vraiment ñëw jàpp si pour defaraat ko pour stade bu nekk bu mucc ay pratiquement comme ni ngeen ko waxee donc août 2000 tojuñu dara réhabilitation xam nga bu ne réhabilitation donc li ñu fi fekk ni ñu ñëw dañ koy réparer dañ koy dañ koy defaraat donc c'est réhabilitation complète da nga dèjà dañ koy defaraat ba pare comme ni mu ko waxee daf ko remettre ko aux normes. yu toj yi ñu dindi ko defaraat defaraat tribune yeeg ñoom seen. parce que dañu soo soo xool dañuy renforcer gradins yi gradins yi xam nga dafa bëroon ay toj toj mais dañuy ñëw renforcer ko defaraat ko ba mu baax. ba pare xam nga gradins yi pratiquement tribune couverte ak découverte amul woon ay sièges léegi dans les normes pour ñu football fi ay compétition internationale il faut que mu am ay sièges c'est-à-dire que dañuy xalaat bu baax confort ak commodité bu spectateurs yi moo tax yëpp dañ koy def mu am ay sièges. boo xool tamit stade bi euh, vestiaire équipe nationale fu mu nekkoon mu nekk si partie tribune découverte foofu tamit respecté wala norme parce que bu doon xool joueurs dañ leen traversé terrain bi yëpp pour de la tribune couverte face aux autorités maintenant dañ ko déplacé tribune euh, comment dirais-je euh, comment dirais-je moom may vestiaire yi dañ koy indi léegi si suufu tribune couverte yi dañ ko indi waaw charpente bi tamit danga ko reprendre complètement moom may toit bi fi nekkoon booy xool léegi beneen charpente bees la am. tribune couverte bi maanaam li ci kaw. mooy weñ yi nga xam ne moom la ñuy gis. moom voilà mooy weñ yi ngeen gis ci kaw moo xamante suuf lay jógee yéeg dem ba ci kaw. muur pratiquement voilà dañ ko changé complètement booy xool stade bi tam benn kii la amoon table magnétique. table magnétique non seulement dañ koy réparer defaraat ko mais dañ ci yokk beneen table magnétique. boo xamante ni en face. mu nekk waaw mu nekk ñaar tableau magnétique. xam ne moom moo féete côté autoroute bi. waaw am beneen tableau magnétique. booy xool dem stade yëpp. ay ñaar table magnétique ni am léegi moom mooy moom tam euh, day permettre mu respecter normes yi donc day am pelouse naturelle de dernière génération si polis bi pelouse pelouse naturelle la doon ne ne nekk doo xamante avec un système d'arrosage automatique moo moom dañ ko siy def booy xool tamit euh, stade booy xool bu ñu doon dugg si hall bi da ngay ñëw rek jël escalier yéeg mais léegi dañ si def ñaari ascenseur yoo xamante ni autorités yi ak personne à mobilité réduite bu ñu ñëwee mën neen jël ascenseur bi yéeg ci kaw yéeg ci tribune sans problème donc yëpp ci commodité yi la bokk. loolu ci tribune euh, loge bi rek lañ ko def. tribune loge bi rek nañ ko def waaw parce que foofu la autorité di jaar ak yooyu tout ça foofu nañ ko def donc euh, dañoo toon ci ñaari kii li mu sax léegi piste athlétisme tamit dañ koy reprendre daat carrément mu répondre aux normes I2AF mu nekk piste athlétisme bi mucc ayib. dañ koy xool dañ koy xool complètement dafaat benn bu bees tàq du donc dina amaat yeneen salle tamit ci biir salle yu mag yoo xamante ni yeneen discipline sport mën na si mën na si mën na gis seen bopp mën na si pratiquer comme ni que les am ay place aussi boxe dina si am place tout ça mais si biir lay nekk yoo xamante ni ay ay salle arts martiaux yoo xam bien équipé ak salle de musculation xam ce sera bien équipé avec un restaurant bu mag tamit dama restaurant boo xam ne plus de 200 places bu ñu prévoir si biir tamit waaw dinañ ko de conférence ak des salles de presse prévoir nañ leen pour seen couverture match di ngeen am salle de rédaction bu baax. ak salle de presse. ba xamante ni si kaw tamit même capacité presse bi noonu kii yokk nañ ko léegi. Mm-hmm. yokkute nañ ko waa capacité d'accueil bu presse bi. presse waaw loge presse waaw yokk nañ ko léegi voilà c'est ça waaw c'est ça ci côté pelouse bi gis nañ ne def nañ fa benn suuf lu nduroog suuf géej gis nañ tamit ay euh, raakool yoo xam ne génn nañ fa loolu mooy système d'arrosage bi mm-hmm. fi mu nekk nii pelouse bi euh, kañ la ñu yaakaar ne ci lañ koy commencé ak muy gazon bi. waa gazon bi comme ni ma ko waxee donc gazon naturel lay doon. Mm-hmm. léegi commencé nañ ko y' pratiquement plus de 6 mois bu ñu commencé defaraat euh, pelouse bi. Mm-hmm. carrément parce que dañ ko wàq yëpp suuf si na ko yëpp nañ wàq boo xamante ni am avec une certaine profondeur. Mm-hmm. dafa si yeneen couche mm-hmm. boo xool ay couche am na couche yi am na même tapis bu mag mu laal si suuf. am na sax même ay. yaa grave kii nu sax euh, béton yu ñu fa yu ñu fa teg tout ça si suufu suuf ba pare gasaat pour système rak euh, de de d'arrosage automatiquement raakool fu mu war jaar yëpp jaar na ko ba teg ko ba dernièrement ñu teg ci beneen suuf su xonk suuf su xonk soo nag war na après si war a teg nag euh, ce qu'on appelle le terreau terreau mooy suuf su ñuul sootu nga xamante ni moom la teg si kawam xam ne bu ñu ko arrosé wala taw bi bu wàccee parce que ñu ko prévoir teg xam naa d'ici mois de juin fekk nawet bi di ñëw taw bu wàccee si kawam nag garçon bi dina mun pousser wu bu baax a baax a baax ñu benn verdure bu rafet. parce que tamit euh, def nañ ay test avant que ñuy def tamit euh, gazon bi. dañ def ay test fii si biir stade def quatre yoo xamante ne si jëmbat ay xeetu gason ñu xool ban moo gën a adapté wu suñu suñu climat ak suñu suuf boobu nañ boobu nañ tànn. pour def ko fu mu xamante ni ce sera benn gazon pelouse boo xamante ce sera pourra résister. aux conditions climatiques voilà. pelouse bi fi nekkoon muy gazon bi fi nekkoon da doon a a ndax naaj bi. effectivement loolu yëpp moo tax ñoom ñu avant ñu koy def ñu def ay tests. ñu xool vraiment parce que il faut que ñu am meilleure pelouse. parce que booy xool stade la vitrine de d'un stade c'est la pelouse. parce que stade boo fa duggee li ngay njëkk gis. li nga lay njëkk a impressionné mais pelouse bi. waaw pelouse bu rafetee rek macha allah moom mooy que ni déjà c'est quelque chose boo xam c'est bien. waaw moo tax ñu bugg si def pelouse boo xamante ni bu baax. bu répondre vraiment aux qualités ak aux normes. yoo xamante ni su mën football sans euh, pratique football bi dina su mën développé bu baax jour yi dina si nekk à l'aise macha allah loolu la. ci côté tribune yi euh, am na tribune découverte commencé nañ si teg benn couche peinture wax nga ko saag nga ni euh, dañ siy def ay siège kon ça veut dire que su ma bëggee comprendre ak tamit ñiy seetaan booy xool tribune yëpp mu dip loge découverte ak virage yëpp dafay mingook ak stade bi nga xam moo nekk jam ñaajo wala. effectivement parce que comme lu ma la waxee. donc euh, il faut que stade maintenant répondre au norme c'est-à-dire c'est important stade pour ñu homologuer ko il faut que par exemple conditions yi mu laaj yëpp mu mu réunir surtout au niveau des spectateurs ñu ñëw seetaan si parce que léegi FIFA boo xool ak CAF dañuy insister beaucoup sur la commodité des spectateurs c'est-à-dire que spectateurs ñoo seetaan il faut que ñu nekk à l'aise nekk foo xam fu baax boo xam ne qualité du am benn problème moo tax stade monde yëpp boo gisee léegi du ñëw rek toog si kii bi noonu si dër bi noonu il faut mu am ay siège siège yoo xam ne day ànd ak doo di ngay toog à l'aise donc loolu moo tax loolu nañ si war a def yëpp si wërale ko si biir stade boo xool réparé nañu donc gradin yëpp fu tojoon am ay fissures yëpp réparé nañ ko ba def si couche enduit mais boo ngeen gis couche enduit boobu ñu si def peinture boobu léegi siège yi commandé nañ ko mi si yoon bi di ñëw léegi siège yooyu nañu jël nag fixé ko nag il y aura pratiquement 60 euh, 000 sièges yoo xam ne dañu koy fixé. waaw parce que capacité d'accueil bu stade 60 000 places la. voilà doo xam ne dañu ko fixé. boo xamante ni macha allah dina jekk rafet yoo xam ne ku ñëw seetaan stade bi. di nga mën toog à l'aise seetaan sa match wala seetaan activité. comme ni ko sans problème. gis am na leneen lu yokk euh, loo xam ne sax boo nekkee ci biti da koy seen muy ay pylônes yoo xamante nañ ko fi daal di samp muy pylône ay projecteurs. mu pylône bu nekk rek yëpp mat na six mais booy xool pylône bu ci nekk rek projecteurs yi ci nekk bëri na mën nañ xam pylône yooyu euh, matukaay yi nga xamante ni def ngeen ko ba daal di koy samp ana lan moo ko waral tamit pour yokk leeraange ci biir stade bi la. waaw parce que xam nga tamit stade système d'éclairage bi dafa am solo. parce que la plupart des activités donc se passe en nocturne wala la nuit. donc il faut mu am éclairage bu mucc ayib bi répondre norme yëpp pour mun a vraiment activité yi comme football ak athlétisme leen di dérouler sans problème moo tax ba ñu gisee système de réglage bu fu njëkkoon boo xam ne amul woon ay pilam pilon dafa ne woon am benn kii si kaw rek ne si kaw toiture bi la nekk waaw mu kii mais ñu ne pour renforcer ko nag ñu gis ni bu ñu defee pylône mooy gën booy xool six pylônes nañ ko def pylône bu met bu nekk mat na cinquante mètres de hauteur et donc di peser pratiquement plus de soixante tonnes booy xool te voilà c'est ça donc leen diis da nga ko da nga ko monter si suuf yëpp ba pare uti ay gru yu mag yëkkati ko teg ko boo xam moom ngeen romb di ko gis noonu yoo xamante ni am na si projecteurs yu doy parce que dafa am tamit ay normes yoo xam il faut parce que projecteur stade lumière stade da koy da koy natt yu stade yu ñu homologué c'est entre pour mu ñu lux et 2000 lux mais yu ñu am dépasse na 1500 lux pratiquement ba xool waaw 1500 lux boo xamante moom minimum bi ak entre 1200 ak 2000 lux waaw norme éclairage Euh, donc euh, stade waaw bu nekk waaw 1500 luxe donc day leer ba grand day leer nañ bu ko fi bés bu ko fi taalee di ngeen gis ni donc dina leer trop macha allah boo xamante ni euh, activités yi ñu siy déroulé yëpp dina déroulé sans problème nit ñi dina nekk vraiment si condition yëpp. yokk lumière yi nekk ci biir stade bi wala. waaw parce que day am yeneen lumière yoo xam ne day nekk si suufu pratiquement booy xool tribune couverte. Mm-hmm. ba dina am yeneen lumière yi nekk foofu pour mm-hmm. éclairer donc gradin bi donc fu gars yi di toog dina dina am mm-hmm. autour du stade aussi day am yeneen kii it fa defaa yeneen lumière yi fay def mm-hmm. mais bokkut ak lumière sportive yoo xam ne les lumières sportives yoo xam ne moom mooy moom mooy pylônes yooyu ngeen gis mais projecteurs yooyu ngeen gis nga xamante pour éclairer euh, donc la pelouse et la piste d'athlétisme pour que sportif yi nekk à l'aise pour mën a seen activité di se dérouler dans de meilleures conditions. gis am na coppite bu baax a baax booy xool tàmbali nañu peinture. mooy euh, miiru stade bi ci biir noonu li ko wër mooy fi porte yi nekk fi ñuy duggee yooyu yëpp gis nañu ñu commencé di def ay couche euh, peinture bi noonu la yem wala am na leen loo xamante ni war nañ ko cee yow. waaw donc première couche de peinture neen fa def bay xool bay def si si biir commencé nañ def première couche de peinture mais après dinañ si defaat deuxième couche de ko réparé. bu def euh, couche ciment bu réparé ko. donc loolu dañuy bàyyi ba vers la fin. donc fekk mu am bu mag bi ñuy def bu ñuy préparé. parce que alentour stade bi rek si stade bi la bokk. bay xool stade bi nekkul rek si parce que ba leen xool tamit alentour bi tam jekkul parce que ñu ngi am projet bu mag boo xamante ni ñu ngi ko bëgg réaliser muy projet d'aménagement du parking extérieur leen fi jëlee ñëpp ñoo xamante ni nekk ñeen si biti stade bi ñu sécuriser ko tëj ko ba pare defaraat ko mu baax boobaa da ngeen gis bu baax mur stade bi ko defaraat peinturaat ko bu mucc ayib boo xam ne gis ni vraiment donc stade bi donc nekk na dans les conditions pour accueillir donc tout type d'événement lay demee ci alentour yi dafa am yoo xam ne ngeen ko ci yokk parce que gis nañ tamit annexe bi muy terrain bu ndaw bi nekkoon ci bi foofu tamit dindi nañ gazon beeg yëpp ba def ci benn suuf waaw donc xam nga booy xool si biir stade bi ñetti terrain football moo fi am mooy terrain central bu mag bi boo xamante fa ñuy defee les compétitions imp euh, euh, euh, comment dire les compétitions waa waa waa yi fa lay déroulé. am na beneen terrain boo xam ne terrain annexe la mu nekk si si biti mais si biir stade la nekk muy wax terrain annexe pour entraînement yi peut-être entraînement pour compétition yu ndaw yi tamit mun dafa nekk dafa am na beneen terrain tam football bu fa nekk boo xam ne pour foot à set la waaw pour mini foot ak foot à 7 boo xam ne prévoir nañ ko def si biir tamit ak terrain basket ngi fii terrain handball mi ngi fii ak ay cours de tennis mi ngi si biir yooyu yëpp bees yëpp dañ koy defaraat ba mu baax moom mooy nekk moom moo concerné si biir yooyu yëpp donc travaux yi réhabilitation yi yu nekk si biir stade bi yëpp chinois yi ñoo koy defar maintenant il y a une partie qu'on appelle la contrepartie sénégalaise contrepartie sénégalaise mooy que environnement stade bi donc c'est l'état du Sénégal moo ko jël en charge donc parce que mënuñu defar stade si biir parce que bàyyi si biti parce bu ñuy homologué bi tamit yëpp répondre aux normes donc booy xoolee si biir di biti ni mu mel neexul kenn parce que gis nañu vraiment ni ko occupation anarchique bi si nekk. Mm. moo tax booy xool ren prépare nañ benn budget boo xam ne mi ngi si direction des infrastructures sportives lancé na marché bi sax mm. pour jël entreprise boo xam ne moo war a gagné marché bi. Mm. pour ñu commencer travaux yi si biti. travaux yi si biti nag bala ñu koy dem day fekk. autorité administrative yi ak ministère des sports ak état bi ñu ñëpp ñu toog réunion xool nañ leen fii ñu fi nekk parce que il faut ñoom xam nañ sax dañ fi war a jóg ñoom ñëpp parce que condition illégale nañ fi nekkee y mm. condition illégale nañ fi nekkee mm. bu leen fa jëlee bu mu ba ñu génn duñ ko bàyyi noonu parce que comme on la nature a horreur du vide mm. il faut que ñu tëj ko parce que bu fekkee entreprise bi fekkee gagné na marché bi jël nañ ko pare bu ñu defee déguerpissement rek automatiquement day attaqué mur de clôture boo xam mur de boo xam da koy fermer carrément boo xam dina am bunt bi ñuy ubbi côté 26 ak bunt bi ñuy ubbi côté Grand Médine mm. mais léegi buñ ko clôturer ba pare nettoyer si biir ba pare dafa am ay installation sportive annexe yi nekk à l'extérieur du stade mm. mais da am deux gazon synthétique mm. dina am benn salle de sport pour les arts martiaux pour les d'autres disciplines sportives aussi dina am même benn piscine bu ñu prévoir si biti am aussi benn centre d'accueil bu mag boo xam tamit si biti nañ ko prévoir pour permettre équipe yu war a ñëw fii def ay regroupement ak yooyu ñu mun def seen regroupement dans les meilleures conditions waaye day nekk comme genre hôtel boo xamante ni vraiment joueurs yeeg ak sportif voilà fi ñuy dalloo yëpp pour préparer seen seen seen activité ak seen match yeeg yooyu et en face 26 complètement foofu prévoir ne dans le cadre de la rentabilité et l'exploitation du stade du stade aussi benn benn centre commercial et tout en maintenant la fonction parce que tamit foofu parking la bu ñuy accueillir ay événements sportifs ñii ñëw di seetaan il faut que ñu am tam fi ñuy war a garer seen oto. mooy bi nekk si biti da ngeen koy réhabilité. waaw dañ koy réhabilité moom laa lay wax. donc foofu il faut mu nekk parking bopp xam ne bu ñu ñëwee wala bus yi. ñu indi joueurs yi wala ñu indi kii il faut que il faut que ñu am fu ñu garer fu baax. foofu tam dañ defaraat tali bi mu am parking bu baax. tout à ne tout na tout en même temps mu am ay installation sportive yoo xamante ni en door de matchs wala yeneen jours yi. jeunes yi nekk si environnement yi Parcelles Assainies wala ñeneen sax mu neen ñëw foofu di fa football parce que ça sera éclairé et nekk gazon synthétique boo xamante effectivement parce que xam nga stade da war a rentabiliser. voilà da war a exploiter rentabiliser ko pour mu mën a jël si boppam charge pour mën a assurer yenn kii coût fonctionnement yi yooyu. moo tax ñu bokk yokk ko si pour stade bu gën a mën a Euh, vraiment euh, jël euh, en charge loolu. directeur oui est-ce que yéen ngi sóoraale beneen branche boo xamante ni dañ daan dañuy gis ci stade yi. à chaque fois bu amee manifestation am na jaaykat yoo xam ne ñoo ñëw di fa jaay pour ñi nga xamante ñoo ñëw di seetaan si ay jaaykatu sandwich ay jaaykatu ndox ak ay jaaykatu yeneen ak yeneen jaaykatu boisson yeeg yooyu loolu naka ngeen ko prévoir ci biir stade kuy ñëw nan lay jëndee wala jaaykat yooyu di leen am espace boo xam dañ leen koy réserver wala. waaw loolu tamit euh, jël nañ ko en compte c'est-à-dire que boo xool stade nu mu nu mu bindoo. boo jógee si escalier noonu am na ñuy wax la les coursives les coursives mooy couloir bu mag boobu wër stade bi si biir couloir bu mag boobu wër stade bi ñooy ñuy woowee coursive dañ fa prévoir ay boutiques ay boutiques donc chaque cinquante mètres wala chaque kii di nga gis euh, benn boutique bu ñu fa installé dina mu xam dina mën jaay tout ce qui est euh, yoo xamante ni spectateur wala ñuy ñëw ci seetaan si dañ ko soxla muy champ du jeu ndox yooyu mais dañ koy réglementé dañ koy organisé di duñ bàyyi rek jaaykat bu nekk rek ñëw dugg la neex jaay di dee nekk ay convention yu ñuy signé peut ay yoo xamante ni ay prestataires de service lañ dañuy ñëw ñu am foofu seen kii ba nga xam ne ñu loué ko ñu xam ne ñoom la ñu dédié espace yooyu ñu koy exploité pour les événements sportifs mais du nekk ku nekk rek da ngay ñëw rek dugal si la neex di jaay ak yooyu. waaw ko def ñëw jaay sa ndox jaay sa crème. loolu daam loolu loolu amul loolu dañ koy organiser. kon ay boutiques yi ñuy joxe la. boutiques yi xamante ni ce sera donc euh, organisé et du n'importe quoi nit fa jaay tam parce que il faut tamit condition d'hygiène yi. ak sécurité ñu matal ko parce que stade tamit il faut sécurité bi daf si am solo. hygiène bi daf si am solo. donc yooyu itam il faut que ñu jël si en compte. Mm. donc de que boutique yoo xamante ni avec des professionnels ñoo koy kii. yoo xamante ne dina fa jaay loo xamante dina mun a accessible à ñëpp ñoo xam ne ñi fiy ñëw pour seetaan si. ci wàllu wàllub euh, sécurité euh, est-ce que euh, réservé ngeen place boo xamante ni xëy na foofu la ñuy def màkkaanu gendarmerie bu ñu xoolee fii gendarmerie lu ci ëpp moom mooy gérer sécurité stade. voilà donc sécurité de am solo la si parce que la sécurité des biens et des personnes parce que biens yi moom mooy installation yi fi nekk ak matériel yi fi def yëpp il sécuriser ko nit ñi fiy ñëw tamit. ak ñi koy fréquenté moom mi spectateurs yi mi joueurs yi mi officiels yi mi média bi ñëpp ñu fi ñëw di dugg il faut que ñu assurer seen sécurité donc c' est important parce que am na waxtaan te bu ñu jotoon waxtaan ak waa bi pa ñu ngi doon waxtaan ak waa donc euh, euh, groupement mobile d' intervention police avec euh, donc euh, le commissaire Thiandoum may remercier au passage ñëwoon na fi ñu waxtaan ñoom bëgg neen fi def sa benn ce un cantonnement mm. un cantonnement de plusieurs éléments ñoo ne ñu ngi wax na sa ay cinquante éléments mën na dem sa dépasse ba une centaine seen base lay nekk seen base fii ne nii dëkk si stade bi en permanence 24 heures sur ñooy assurer boobaa sécurité stade bi yëpp stade bi si biir stade bi ak alentour stade de telle sorte que ba amee événement tamit ñoom di mën a jël seen disposition yëpp pour assurer la sécurité waxtaan nañ sécurité a prévu de mettre des caméras de surveillance partout au niveau des gradins au niveau aussi donc la sécurité parce que dañ bëgg képp ku fiy dugg nga dugg fi si jàmm nga def sa activité yi si jàmm soit nga seetaan wala nga def sa activité yi jàmm génn fi si jàmm donc loolu c'est très important loolu moom donc c' est boo xamante ni tamit ñu ngi ci taxaw nañ ci bu baax te jël nañ matukaay yëpp pour loolu. xam ñaar yi may mujjee laaj rek comme wax nañu lépp su amul lu ma fàtte yow tamit nga fàtte ko euh, mën nañu xam ouvrier yi si ñan la ñu dépendre ci chinois yi la dépendre wala ci état bu Sénégal. ouvrier yi comme euh, partiquement comme c' est une entreprise chinoise moom mooy defal euh, travaux yi su ñoom lañ dépendre. waaw parce que entreprise chinoise bu mag bi mu mi CSCSF dañuy def ay sous-traitants mm. sous-traitants yi jël nag la plupart c'est des chinois ay chinois ay sous-traitants chinois la ñoom ñooy recruter ouvrier yi mm. ñoom ñooy recruter donc il faut pas dire aussi il plus de 200 ouvriers yoo xam ne ñu ngi ñu liggéey ci chantier pratiquement. beneen beneen création d'emploi la muy yoo xam ne gis naa leen fi ñu fiy. effectivement donc c'est une source de création d'emploi yoo xamante jeunes yu bëri yoo xamante ne avec tous les corps de métier mm. ay maçon menuiserie métallique tu vois ay plombier ay peintre yëpp ngi fii di def seen activité tranquillement pour vraiment contribuer su si liggéey stade bi daal voilà directeur monsieur Sy li may mujjee laaj mooy kañ la ñu yaakaar ne war nañ fii euh, amal compétition bu njëkk ci stade bi waaw donc dans les prévisions Et donc voilà dans les prévisions ñu ngi euh, avec les l'entreprise chinoise ñu ngi compter livrer stade bi courant du premier trimestre Euh, deux mille vingt cinq. deux vingt cinq au plus tard daal ma nañ ko sa avril deux mille vingt cinq dinañ mën a livrer stade bi. boobaa bu ñu livrer stade nag boobaa dina am cérémonie d'inauguration ak tout yu mu war yëpp. et comme ni nga koy defee cérémonie d'inauguration yu bëri. dina am match test. match test boo xamante ni dañ ko def si biir stade bi avec des spectateurs ñu ñëw xool tout ça après mën a maintenant euh, euh, commencer exploitation bi normalement. voilà c'est ça. Euh, lan laa loo xamante nii xëy na fàtte ko ko loo xamante ni bëgg nga ko ci yokk. li mu si bëgg yokk mooy que ni euh, ñun constaté nu pratiquement que Sénégal dañuy investir lu bëri si wàllu donc infrastructure sportive mm. stade Sénégal mi ngi fi. Mm. Dakar Arena mi ngi si. Mm. arène nationale mi ngi fi réhabilitation stade yi si def si xaalis bu bëri mais malheureusement li ñu constaté mooy ko au bout de quelques rek dégradation dégradation day gaaw day gaaw yàqu. moo tax loolu mu nekk un défi majeur pour nous. boo xam daf ñuy interpeller même au niveau du ministère des toog nañ si xalaat nañ si ñu xool lan la ñuy def ba xamante ni suñu infrastructure yoo xamante ni infrastructure publique la. et soit état di si def xaalis bu bëre wala dans le cadre de coopération ñu jàppale ñu def si xaalis bu bëre lan lañ leen koy préserver durablement pour que infrastructure bañ a gaaw a yàqu. boole si modèle de gestion boobu moo ta ñu réfléchir ba créé woon soo xamante ni bu bees bu tudd OGIS office de gestion des de l'exploitation l'entretien et la maintenance de toutes les infrastructures du niveau national lool xam naa peut-être prochaine fois dañ si gën a kii dañ si gën a wax mais loolu daal moom mooy défi majeur bi parce que comme comme on dit aussi entretien maintenance dafa am coût coût bu mu laaj coût bu bëri la xaalis bu bëri la laaj parce que da nga ko war a entretenir tous les jours stade da nga ko war a entretenir toujours di tous les jours vestiaire yi tous les jours toilette di set tous les jours environnement stade tous les jours tu avec un personnel qualifié surtout yoo xamante dañuy ñëw di assurer donc entretien bi loolu c'est très important avoir aussi un personnel technique qualifié pour l'entretien la maintenance au niveau par exemple de l'éclairage par exemple au plomberie au niveau nest pas du système d'arrosage extra yooyu yëpp au niveau aussi des installations sportives mais équipement yi fii teg il faut que ñu koy assurer donc euh, entretien ak maintenant mi set mu nekk de qualité pour que sportif yi di si ñëw seen pratique di parce que ça joue sur la pratique parce que installation bu ñu ko defee comme surtout ak pelouse bi pelouse tamit c'est très important et puis sa maintenant sam dafa laaj te un personnel tontu buñ ko war a def ak norme yu mu si war a laaj lépp ak arrosage bi mu laaj lépp tu vois ñu koy suivre de près pour que produit bi bañ di gaaw a yàqu donc loolu c'est très important loolu nag ñoo tax loolu ñu ngi ciy bàyyi xel bu baax a baax a baax. wax ne comme li ñuy liggéey ak koppar yi ñu ci dugal ak li ñuy faral di gis Sénégal dangay gis ay euh, mbir yoo xam ne dañ koy defar dugal ci xaalis bu bëri mais entretien bi du am suivi. te day gaaw a yàqu kon fi mu nekk nii yéen jël ngeen seeni i seen i matukaay. pour suivi bi ak entretien bu baax donte sax mbir yi pare. effectivement jël nañ ñu ngi siy xalaat bu baax ñu ngi siy xalaat bu baax d' autant plus que même dans le cadre de la coopération avec euh, la ba pare dañ accompagner dans le cadre de la maintenance et d' entretien dina am équipe bi fi toog. ñoom du ñu paree rek livrer stade rek dem. dañu fi toog lu mat at wala at ak topp pour accompagner équipe technique bi fi nekk si maintenance bi. concernant la pelouse surtout ñu accompagner pour pelouse bi di nekk toujours aux norme mu nekk pelouse de qualité ñu koy entretenir bu baax au niveau aussi de l' éclairage dinañ pour éclairage bi même dina formé équipe bi fi nekk non seulement parce que y aura une équipe qui sera là et cette équipe aura besoin d' être ñoom ak seen mu am tamit aussi de li ñu koy wax euh, de de de de connaissance yi donc euh, ak yooyu tamit c' est important loolu ñoom dinañ ko assurer parce que si document bi ñu signé ak ñoom loolu daf si bokk. waaw donc accompagner ñu. pendant quelques années. pour que ñu mën a assurer une bon et que et la maintenance de l'infrastructure en même temps former le personnel qui sera sur place. bën bënn xariñ a xarañ. boobaa ñu dem nank waa ñu ñu assurer continuer waaw ñu assurer continuer bi. Euh, merci beaucoup euh, directeur monsieur Sy kontaan nañu lool ci entretien bi xam naa ne. lépp leer na lu jëm ci wàllub euh, liggéey bi commencement bi ak fi ñu toll nii ak ba kañ lay jeex ak i tamit comme li nga wax sànq li nga xamante nii yéen euh, jël ngeen ci euh, seen matukaay pour après ngeen mën a wéyal liggéey bi loolu mu nekk loo xam lu am importance la pour tamit gën a entretenir infrastructure bi nga xam dugal nañ ci xaalis bu bëri alors ñu ngi lay remercier ñu lay remercier di la gërëm tamit ci li nga xamante ni may nga ñu ko. waaw man tamit maa ngi leen di remercier bu baax di leen gërëm di sant di leen sant bu baax vraiment di ngeen am donc euh, yitte ñëw fii sees ñu pour waxtaan ak ñun ba pare tamit eggali population bi donc euh, li xew si bi stade bi fan lañ toll parce que xam naa gars yi itam yàqamti nañ seen stade prêt wax naa parce que xam nga booy xool Sénégal on a un déficit d' infrastructure sportive yi booy xool match championnat yi sa gis nga ji si bëree stade yi ñu koy joué mooy loolu di nga waa bëriwuñu stade bëriwuñu stade yu ñu homologué bokk tu vois donc bii bu ñëwee bu ñu ko defaraatee ba mu baax donc da siy yokk vraiment pour loolu Demba Diop tamit mi ngi nekk en phase de réhabilitation boobaa bu paree tamit mm. macha allah. dañ ko bu paree dañ fiy football championnat wala. incha allah dañ fa mën football championnat dañ fa mën caa football donc match donc. Euh, waaye du am làmb de. <laughs> non non léegi làmb moom ñoom am na am nañu seen stade léegi waaw ñoom moom sant yàlla bu baax am nañu dafa ne stade bu mujj ayib mi arène nationale wax dëgg yàlla. avec lu mu laaj yëpp jox nañ donc gis nga ñu ngi fay épanouir ñoom mbër yi ñu ngi fay def seen combat yu mag foofu macha allah mm. donc loolu je crois. waaw championnat national yaakaar naa ko bu baax dina ko am parce que dinañ liggéey ak waa fédération parce que il faut ñu liggéey ak waa fédération de football aussi. parce que euh, nañ ko. parce que léegi xam nga championnat bi dañu ñëw évoluer vers la la professionnalisation. et ku di professionnalisation parle aussi d' infrastructure de qualité. donc loolu c' est c' est très important. donc loolu dinañ si liggéey ñoom bu baax. donc saa ñu fi mën football match championnat di fi mën football match donc. international euh, match international pour l'équipe nationale Sénégal du seulement Diamniadio lañ koy footballé te fii avantage bi mooy accessibilité bi waaw c'est un stade très accessible fa gis nga fu mu nekk au cœur de Dakar donc waaw quartier populaire yi vrai wër ko Grand Yoff Grand Médine Parcelles Assainies Yoff yëpp daal macha allah donc suñ fi footballé équipe match équipe nationale dina fees parce que xam nga léegi nit ñi dañu accroché wu si équipe nationale waaw dañu accroché wu si dina am façon ak amul équipe nationale tu vois c'est vrai que Diamniadio sore na mais c'est une c'est un stade de qualité de dernière génération macha allah de cinquante mais fii on a déjà pour pouvoir accessible et puis si perspective bi ñu jëm donc Sénégal war na mun a organiser même une Coupe d'Afrique des Nations parce que booy xool depuis 1992 organiser une Coupe d'Afrique des Nations. voilà parce que xam nga euh, cahier de charge CAF pour organiser une coupe d'Afrique des nations il faut au minimum cinq à six stades waaw donc euh, loolu parce que déjà Diamniadio mi ngi fi bii mi ngi fi mais dañuy xalaat réhabilité stades yooyu nga wax Aline Sitoé Diatta ak ak Demba Diop ak ak ak Lamine Gueye bu Kaolack même bu Saint-Louis projet de construction de construction du du stade Maître Babacar Sèye ba xam ne maquette bi yëpp génnoon na yooyu yëpp donc euh, ñu ngi siy xalaat parce que même boo xool si daaw postulé woon nañu pour organiser une coupe d'Afrique des nations pour 2027 waaw parce que si si boobu dañ ci woon tamit stade yi ñuy war a defaraat yoo xamante ni day répondre aux normes pour que pour accueillir des compétitions officielles internationales voilà yooyu yëpp projet yëpp dugal nañ ko ci mais malheureusement donc euh, ñu baatu ñu maam équipe euh, waa Kenya groupe boobu euh, gagné ñu mais naa Ouganda yooyu mais man mais n'empêche que ñu ngi si dynamique boobu en deux mille vingt neuf duñu mën a yàlla mën a def suñu stade yi ñu defaraat ko bu mu gën a baax ñu entretenir moom gën a baax bu ñu mën a organiser parce que Sénégal tam mënul nekk si si top <laughs> équipe africaine yi waaw équipe nekk actuellement yàgg toog na yàgg nekk première équipe africaine léegi mu ngi si deuxième place bi donc vraiment euh, mu nekk équipe bu ñu ràññee si monde bi surtout accueillir vraiment une coupe d' Afrique des loolu moom wax naa ñu ngi siy xalaat bu baax voilà c'est en tant que champion d' aussi yooyu tamit ñu ngi si perspective yooyu daal merci. maa leen di bu baax incha allah am benn problème di leen gërëm di leen sant bu baax. yow tamit suñu borom gën la fi yàggal. yàlla gën la dénkaat yeneen i euh, euh, maanaam direction yu gën a mag Euh, ba mu weesu stade de Léopold Sédar parce que ku yaatu nga ku baax nga teyit ku disponible nga lii nii euh, dañuy wax ne rek kenn amagu ko euh, ci Sénégal bi ñu commencé réhabilitation bi Leral TV rek moo ko am nga may ñu ko loolu ñu la ci gërëm bu baax a baax. ñu ngi leen di gërëm bu baax parce que leen rappelé tam ñun tamit askan mi ñoon fi teg askan mi leen fi nekkal donc askan mi ñu liggéeyal donc jaadu na tamit lépp li askan soxla si wàllu information war ki ñi ñi ñi jagleen ko. voilà euh, incha allah <laughs> yàlla baax na incha allah incha allah am benn problème loolu dañ si kontaan merci beaucoup jërëjëf. mbokk yi mi ngi noonu gis ngeen loolu lañ leen indiloon fii ci stade Léopold Sédar Senghor mu jëm euh, ci liggéey yi nga xamante tàmbali nañ ko woon ci weeru août atum 2022 mu war a nekk 30 euh, mois maanaam fanweeri weer la war a doon. kon fi mu nekk nii comme ni ngeen ko déggee ak le directeur monsieur Sy di Youssoufa moom mi nga xam moom la ñu dégg stade Léopold Sédar Senghor euh, nee na euh, ci téeméer yoo jël juróom-ñaar fukk yi pare nañ ko maanaam 70 pour cent ci travaux yi pare na euh, te fii ak weeru avril 2025 liggéey bi yëpp dana jeex ñu daal di mën a xool naka la ñuy programmer match test ak jàppandalu ñi nga xam ne ñoom ñooy chinois yi fi nekk ñoom tam ñu neen jaajëfal waaye mbokk yi am na ay images yoo xam ne gisul ko ba ci biir tribune yi ba ci yeneen yoo xamante ni ñu ngi koy liggéey euh, mënuñu koo am ndax lan parce que chinois yi bëgguñu lépp daal di génn xam ngeen ne chinois moom mbirum jinne lay def mbirum nasaraan moom noonu lay demee seen liggéey toujours dañ koy def du ñu bëgg mu génn lépp génn kon boog wan nañ ci wan nañ ñu ci as mooy li ngeen gis euh, ci li nga xam moom mooy tribune bi ak i tamit eh, ci ñaari tableau yi nga xamante ni magnétique yi fii nekk ak i tamit ci biir pelouse bi loolu yëpp wan nañ ko waaye ñun suñu bopp dem nañu ba dugg ci li nga xam moom mooy ci biir vestiaire yeeg yëpp ak eh, toilette yi visité ko loolu tamit may ñu ñu woon ñu filmer ko ak ci jàppandalu ki nga xamante ni moom mooy le directeur muy Youssouf eh, si moo ñu dimbali ba ñu am image yooyu nga xamante ni moom lañ leen wan noonu ak itam quelques photos yoo xamante ni da ngeen koy gis eh, ci biir image yi jaajëfal mboolem ñoo xamante ni ñoo jàpp ci liggéey bi Cheikh tijaan sama cadreur caméraman bi sama sëriñ maa ngi koy jaajëfal waaye tamit eh, waa ministère de sports ci turu Youssoufa si ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax merci beaucoup encore directeur yàlla na suñu borom jàppale ñu gën la dénk ay yu gën a mag stade Léopold Sédar yàlla jàppale la nga mën nga sa liggéey xam nga ko xam nga ni ngay waxee ak doomu aadama merci beaucoup encore au directeur euh, du stade Léopold Sédar Senghor monsieur Youssoupha Sy mbokk yi chers téléspectateurs téléspectatrices ak itam chers internautes jaa ngeen jëf ñu leen jox rendez ak beneen jotaay bu mag ci li nga xamante ni moo jëm ci wàllu tàggat yaram incha allahu rabbi ak sama cadreur Cheikh Tidiane jaa ngeen jëf ba beneen yoon incha allahu rabbi